del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar di am info yu ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar Dakar notre suñu mbokk internet Feeling Dakar TV comme ni ngay defee à chaque fois saa bu actualité bi tollee fii dañuy ñëw waxtaan ak ki nga xamante ni mën naa ni suñu maama di Père Khadim Samb je pense que ni. kenn dootu ko présenté ci li nga xamante ne ni mun naa ne digganteem moom ak ki nga xamante ni moom mooy président de la république di mag Sall naam fu mu dem ci lu bari rek moom mooy nekk ci ginnaaw mun naa ne moom moo ko daan reetaanloo da jékki-jékki wax mu ne ko waxal français moom français li nga xamante moom mooy ah, suñu père Macky Sall loolu dafay daaneel moom moo tax tey ñu fas yéenee ah, toogaat ak moom waxtaan ak moom balaa boobu dama koy jox mu nuyoog mbokk internet fi di Dakar TV ñuy seetaan après ñu ko moom waxtaan bi ah, papa maa leen di di les ziar bu baax a jërëjëf euh, noo ngi lay delloo nuyoo di la fay nuyoo yow ak sa caméra woman bi nga àndal ak euh, kiy dawal daamar ji di balu Sénégalais yëpp àq di baal ñëpp àq mm-hmm. di ñaan yàlla sunu borom bu sama kàddu daanoo yàlla na yàlla sunu borom boole nu baal di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan Feeling Dakar mm-hmm. ci biir réew mi ak diaspora bi di ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ni mooy boroom jàmm yàlla na yàlla sunu boroom def ci réewum Sénégal jàmm yàlla na yàlla tàppe xol yi di ndokkeel kilifa diine ak kilifa aada yépp di ñaan yàlla sunu boroom nawet bi nga xam ni moom la dëgmal yàlla na ko yàlla def muy nawet bu barkeel yàlla may nu ndoxam jàmm te lépp lu ci waay ji yàlla na ko yàlla sunu borom ñoral bu ñoree yàlla na nga ko góob soo góobee yàlla na nga ko muurloo di nuyu képp koo xam ni kii yaa ngi seetaan Feeling Dakar hmm. waaw. yaakaar naa comme ni nga ko waxee euh, mbégte la à chaque fois mu xëy delal bi waxtaan ak moom dañu def nag papa dugg ci waxtaan bi balaa ñuy ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy ci làmb parce que euh, ñu bari ñu ngi naan ma boo demee dañoo bëgg tey euh, père waxtaan ci làmb parce que affiche yi nga xamante ne taxaw na bari na te war na cee mën a wax loolu yaakaar naa dañ ci digg après mais balaa ñuy dem dañuy ñëw nag. Euh, ci li nga xamante ne ni moom la président de la république di Bassirou Diomaye Faye nominé ki nga xamante ni moom mooy Pape Alé Niang mu nekk nouveau euh, DG maanaam directeur général de la RTS euh, ci loolu lañ ko bëgg a waxtaan ak moom papa bi nga yëgee loolu nag nga ko def xibaar boobu Pape Alé nekk directeur général de la RTS. waaw di directeur général u RTS Racine Talla. Mm-hmm. di ko féliciter solennellement di ndokkeel l'ensemble RTS directeur télé directeur programme li commencé ci directeur général Racine Tall ba ci plateau bi di leen félicité di leen ndokkeel di leen ñaanal ndax RTS tax ma nekk fonctionnaire de l'État fa laa liggéeyee ñaar fukki at yu manqué benn wala ñaar fukki at ak benn ba retraité fa mm-hmm. euh, ànd ak Racine mu liggéey fa liggéey bu rëy mm-hmm. boo xam ni fii ak cinquante ans histoire dana bind taarix Racine la yaay premier directeur général bu juddoo ci gox RTS nekk directeur généralu RTS élection maire jot nga dem laaj sa gox ba nga juddoo ñu fal la nga nekk maire ba buukali ñaari mandat maire kooku la commencé ci le premier directeur général à 1962 61 62 muy ku ñuy wax Alioune Fall yàlla na ko yàlla dolli ay leer papay jéemati Fall ba ñëw ci moom mii nga xam ne mooy war a jox lee ngay Pape Alé amul benn directeur général bu mas a am loolu di ko félicité di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér ndax tombe ma waral ay gaaf ci ay racine tàll la RTS amee bâtiment fukki étage yu mat di ko ñaanal li mu jëm yàlla na gën lim jóge di ñaanal personnelu RTS di ñaanal ki nga xam ni kii mooy Pape Alé Niang te war fa ñëw moom itam yàlla suñu borom jàppale ko ba mu def résultat bu gën bi Racine def waaw ndax Pape Alé matière Sud FM la maa ko recruté. Ah waaw parce que bi ñuy créé Sud Malien euh. man maa ubbi Sud Malien ah bon Pape waaw foofu la jaar moom ak Issa Niang ak Ndeye Marème Ndiaye ak Khady Niang mhm. ak euh, comment dirais-je euh, Cissé bi nekk euh, TFM mhm. et tant d'autres et dañ créé woon Sud Mali bi ñu génnee ISIC mhm. parce que ñoo leen jàngal journalisme à travers de Latif Coulibaly institut bi nga xam ni mooy ISIC te groupe Sud communication moom ko bi ñu fa génnee nag boobu fekk na journaliste yi bari parce que premier rajo privé. dafay bari stagiaire. président Babacar Touré ne nañu créer benn scène bu ñuy wax sud banlieue Pikine man maa ko ubbi ak sous-préfet Pikine ñoom ñu fa jaar. di ko ñaanal yàlla. Euh, yàlla na yàlla suñu boroom defal. Euh, Pape Alé euh, lu kawe njortam ci fii ñu ko dénk. mais papa bett na la wala. non musuma bett. loolu képp ku xam politique. ndax. la commencé 1961 jusqu'à notre jour bépp opposition buy dem di wutim réew journaliste ya ànd ak yow du ca ñàkk koo xam ni kii dana féeteeg yow ñu jàpp ne journaliste fekk moom dafa am lu muy dox soo gañee nommé ko Racine looloo ko tegan RTS kon maanaam lu mu nekkoon ci RTS euh, ci bokk APR looloo tax mu nekkoon directeur général. Racine bi muy ànd ak président Macky sàll APR amul. d'accord waaw. Mm-hmm. donc bettu ma vraiment bettu ma. Mm-hmm. waaw bettu ma euh, donc boobu paas man nañ jàll ci leneen. Mm-hmm. waa mais mais tamit papa boobu paas mënoo jaar ci leneen euh, da nga yàgg RTS vraiment comme ni nga ko waxee formé fi tey ñu bari. Euh, tey ku mel ni Pape Alé nekk li nga xamante ni mooy directeur général bu RTS naam euh, ñi ngi dégg sax ne jamono bi nga xamante ne nii lañ nekkoon ci élection yeeg avant dañuy daan gis Pape Alé di wax ci Ousmane Sonko ñu bari naan est-ce que nekkul euh, récompense lu ñu koy yàgg doon wax loolu tax mu jox ko poste bi ban jàngat aussi nga am ci loolu. loolu aw ci jàngat. Ah. duma ci wax. <laughs> mais waxtaane rek. non non ci wax vraiment du ma ci wax. Mm-hmm. <laughs> tolloo bu ma liggéey RTS ba retraité fa. Mm-hmm. yàlla dogal directeur général bi ma recruté woon mm-hmm. ndax du du Racine moo ma recruté Racine RTS la ma fekk. Ah, RTS su ma fa duggee sama mag. Mm-hmm. sama xarit. Mm-hmm. suma idole muy El Hadj Babacar Diagne président sénéral moom yóbbu RTS. taxawuma boole ma ak Mamadou Baal ñoo ma jàngal lan mooy tele ak lan mooy. Imaas. Mm-hmm. ma di ko ñaanal moom Babacar Diagne. Mm-hmm. yàlla na yàlla guddal fanam. ak Baal ak RTS yëpp. Mm-hmm. Euh, bu ma jaaree foofu. ba Racine fekk ma fa. Euh, yàlla dogal ñu ànd ànd bu rafet. ñaata at oh, xamatuma nag xëy na dix neuf ans dix huit ans vingt ans mais en RTS laa retraité. Racine liggéey fa liggéey bu rafet la vingt cinq ñëpp feyeku mhm. ku feebar faju ci clinique bu la neex hôpital bu la neex pharmacie boo dem ñu jox la garab mhm. euh, treize mois fonds commun conseil lépp mhm. ak effectif bu doy loolu am loolu defoon na ko fa loolu moo tax boo ma ci laajee euh, du ma ci ñàkk wax mais du ma dugg ci sujet bu jëm ci lu xeetoo ak politique vraiment mun nañ ci passé. boobu wax bi ci des itam Pape Alé sama rakk la. moom xam na. xam na fi ñu jaar. maa moom. parce que kër gi nga xam ni fa la ñu ko formé fa la xewe fa la fële. ba tey maay kilifa ga. muy le groupe Sud de Communication kon maa ngi koy ñaanal. yàlla na dal jàmm. li Racine def RTS. yàlla na def lu ko gën def lu ko ëpp. Mhm. foofu laa yem ci sujet boobu dootuma ci wax. <laughs> d'accord comme ni ko suñu papa waxee ne foofu la yem ci sujet bi euh, dootu ci wax yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax ne tey ni papa danga am danga wax lu am solo ci Racine Tall ne naam euh, bi mu nekkee ci li nga xamante moom mooy RTS da daan fay avant vingt cinq wala boog cinq day fay carrément mais amoon na ñu nekk ci euh, biir RTS génn daan wax seen fay da daan am retard tey lan ngay wax ñooñu ak seede yi nga xamante ni seede non non du dëgg retard amul RTS mosul am diinaa li ma fa nekk. Mhm. musul am RTS. lay dira day toog ay weer yoo xamante ni daanu jot. c'est faux xam nga boo tàmmee micro. Mhm. micro micro kenn moomu ko. danga nga ciy nekk tey suba keneen nekk ci. Mhm. mais ñi nga xam ne dañu dañu tàmm micro. bu ñu leen dindee rek dañuy mel ni ku dof. mais loolu amul. man de nekk naa RTS ba traité su ma tous vingt cinq vingt six vingt sept au plus tard ñu wiiri sama solde ci banque bi sama compte. Mhm. billaahi loxo laa yëkkati wallaahi tallaahi yàlla laay wax. xëy na kon loolu ci mën na am ci beneen boor bu ma xamut mais RTS bi ma nekkoon ba retraité. Mhm. VRD ñu fay ñu solde. Mhm. wala avance ki amul wala avance korité wala avance màggal wala avance gàmmo. wala treize mois wala fookuma musuma ko faa fekk man na am ci biir ay wax am nii kii ni lii kii ni lii nungu nañ sama place dañ. Ah, yaakaar naa loolu parenthèse la bi nga xamante ne nii du ma toog yow te du leeral ah, li nga xamante ni moom la sénégalais di wax je pense que ni leeral nga ko bu baax a baax mais euh, papa dañuy dugg nag ci làmb ku xam Alboury yaakaar naa tey bu tollee fii ci yow la parce que su ma juumul yaa ko njëkk a tëggal combat ah, donc tey miy bëreeg Jacob Balla dimanche. mu nekk xale bi nga xamante ne moom Jacob xale bi nga xamante ne je pense que ni wane na léppam ci wàllu làmb tey ba ñu doon déclarer ci combat boobu diggante Albouri ak Jacob Balla Bâp lan nga ñuy wax ci combat boobu. waaw Albouri maa ko feeñal loolu la yàlla dogal parce que man jig naa mbërëm làmb mu ne. man mm-hmm. mbërëm làmb mu jaar ci man dégg daal yi. tey seen ci man la jëkk a jaar dégg na daal yi. Mm-hmm. Yékini ci man la jëkk jaar dégg na daal yi Gris Bordeaux ci man la jëkk a jaar et Bombardier et tant Albouri. tabarkàlla macha allah mbërëm làmb la fii nu toog laa ko nomee. Mm-hmm. mu ni ma loo ma fay baax na. ndeysaan <laughs> boobu moo laa xam ni kenn mënul tee mu dégg daal yi. te dafa gëm boppam. Mm-hmm. gars yi dañ ko jàppee comédien mais Alboury sore nag comédien. Mm-hmm. am na fit mën naa bëri am na sañ-sañ ba pare xam na li muy def. waaw. mais xale bi muy dajal Jacob Baldé. oh Jacob. Mm. ngemb li dafa juddu fekk ngemb ci kër gi Sakob dafa judd fekk ngemb ci kër gi ndax Faalaay Baldé sa maam doy na ci mbërëm làmb maanaam Sakob bu gëmmee dafa war a bëre bu dee nelaw Sakob bu nelawee ba deux boo ko yee daa war a bëre moo tax combat bu riis ngay gis ndax njool ak ndaama la waaw bu neex a neex a neex a neex a neex ngay gis waaw ñoom ñaar kan mooy tey avantage ci ñoom ñaar ñëpp xam nga léegi làmb ji mhm. dama lay wax kenn ku ne li mu war a def mais ni diwa am avantage dootuma ko wax ndax samay dooma ci nekk ci làmb ji bëri mhm. su ma gemban sàkkoo di ko indi ci làmb ji mhm. dama ko naa bu arbitre soufflé digeel xeex bu doonul dëgg daw jàppanteeg moom féete suuf bëri alburi su ma ko indi woon dama ko naa ràccal say tànk taxaw saa bu fexee nga dee ak moom tàllal sa gauche droite freiné ko parce que day am bërëkët boo xam ni soo ko wàññiwul pour daan ko du yomb te Sakko nay na xale yi def ci moom attention très attention mbër de kaar kaar donc ñoom ñaar ñëpp ki ku ki avantage am mooy daw jàpp bëre féete suuf bëre waaw ndaama la mm-hmm. bu arbitre bi soufflé dawal jàpp fexe ba féete suuf bëre kii bu arbitre suuf lee ràccal say tànk mhm. su fexee nga dajeeg moom mhm. waaw ko en tout cas xale yoo xam ne yii mhm. yàlla na yàlla may leen gudd fan may leen wër mais xale ñu war a bàyyi xel lañ ñoom ñaar ñooñu am nañ avenir ci làmb Alboury nag indeegut àddiya ba léegi. parce que tey bu feeyee. Ah, mu indi àddiya de xele bu baax la nag. Mm-hmm. xam nga Alboury euh, euh, bërëg alaaji maam góor gi la ma jox ak Baye su Diène. Alboury su bàkkoo mu neex. Mm-hmm. su daanee mu neex. su defee signature contrat mu neex. Mm-hmm. te loolu dafa am solo. parce que promoteur yi dañ koy yéene mu am combat. ndax dafay jaay komba ba pare dafay bégal amateur yi du mbër mu gourmand ci physique am waaw mhm. Mhm. Euh, papa loolu yaakaar naa am na solo bu baax baax ci diggante euh, Jacob Baldé ak Albouri ñoom ñoo war a bëree dimanche je pense que ni comme ni ngeen ma doon wax boo leen demee tey daal waxtaan bi na nekk waxtaanu làmb moo tax ñu commencé foofu bi ñu fa jógee dañuy dem nag ci combat bu premier mai bi di dox ci diggante jee ak Franc di combat bu neex combat bi nga xamante ne nii je pense que ni dem face à face bi gis na Bombardier dafa mujjee teg micro bi ban jàngat nga ci am ndax li ko Franc wax que ni 20 minutes 20 dama lay daan ban jàngat aussi nga am ci loolu. waaw loolu waxi mbër rek la mhm. Bombardier kenn du bëreeg moom ni ko vingt minutes dama lay daan vingt secondes mhm. dama lay daan mhm. ndax Bombardier tabarkàlla am na fit te mën naa bëre xanaa xamoo ni Bombardier su fekkee ni damay toog ci cumikaayam di ko indi ci làmb ji ay defe dana soree lool njool la néewul doole gàttul mm-hmm. ràccali say tànk di xaar gaa yi mais poids lourd faal daf ma ni déclencher sa observation mm-hmm. déclencher sa observation baaxul ci poids lourd mm-hmm. Bombardier pourquoi mu taxaw di xaar Bombardier amatul lu muy prouver ci làmb def na lépp ci làmb daan na ñëpp presque su ma ko doon indi dama koy wax ne li ma wax albir laa koy wax bu albir suuf lee léew xaar Bombardier def na dem na ale retour defaat aller ba dellusiwaat retour moo tax Franc loolu mu wax euh, Bombardier dafay jàmbaar amu fit gis naa ko démb mu am attitude bu ma ko musul gis mu am ci àddina waaw parce que baat boobu euh, wax ko ko yombul te wax ñi ko ko wax ñëpp daanuñu ko ndax Balla Gaye de waxan na ko ko Modou Lo waxan na ko ko combat bu neex la nag Franc nag. Mhm. mbër la moo xam ni mii dañ koy ñaanal parce que mën na doon roi des arènes ndax xam nga. Mhm. boo doonee mbër ba pare doon bëre kër te am gëm-gëm am sañ-sañ. Mhm. borom sañ-sañ lu munul am amul ci àddina. góor bu amee sañ-sañ gëm boppam. ndax boo nee sañ-sañ sax gëm sa bopp dugg na. mais euh, mbër bu am euh, Franc dafa am sañ-sañ. mais ki muy dajale dafa am sañ-sañ comme moom. waaw ñemeñ lool te euh, combat bu neex la daal. Mhm. yàlla nañu yàlla yóbbu premier mais mhm. euh, stade bi teel a fees. Mhm. di féliciter le promoteur. waaye combat bu neex la. waaw xam naa ni bu ñu jàppantee. bëri bu rëy dana feeñ. waaw bu ñu jàppantee bëri bu rëy dana feeñ. Euh, bu ñu demee ci combat njàndeem bi. Eumeu seen Sa nax nga ko gisee instant yi je pense ni combat boobu sénégalais commencé nañ ci di yeey di wax ban jàngat nga am ci combat boobu. boobu combat. waaw combat furli la furli. furli. Hmm. Hmm. Eumeu dafa daan Balla gay 2 ñaari yoon te Balla gay dégg roi de arènes deux fois. dëgg la. deux fois wala benn yoon benn yoon. Hmm. ñu bokk ndey ak baay te bu jëkk soo duggee ci écurie daan ka fa man mm. bala ngaa génn da nga daan ñëpp bañ jeex nga nga booleel ñëpp ci lim bi mbaa ñu daan la nga door a dem kon Sa Thiès fi mu toll ci kàttanu yàlla ku daan magam bu leen làmb boolee làmb ja war naa rëy war naa riis war naa neex komba bu rëy la boo xam ni bii bërekkati loxo lañu heure bu ñu tampoo rek mu jeex. Mm-hmm. waaw waaw. Mm-hmm. Eumeu Sène boo ko àndoo la nga koy wax. Eumeu seen soo ko indee Eumeu seen amatul lu muy prouvé ci làmb mbër muy may ay rakam sens. Mm-hmm. li mën a def entre entraîné ba am coffre am endurance. bara suuflee nga toog say tànk dégloo. épargne sa bopp. Ah. soo gisee lu leer nga dem soo ko gisul bàyyi kii fëkk ñëw. Mm-hmm. waaw loolu rek. Mm-hmm. te Eumeu Sène màggatam bu kii màggatam gaynde la de. te boo gisee combat fonk na ko aussi. fonk na combat bi parce que dafay combat boo xam ni bii combat capital la ci moom. Mm-hmm. Eumeu seen bu ko yàlla may chance. mu daan Sa Thiès loolu loolu loolu loolu histoire dina ko bind fi ak téeméeri at. waaye bu ko Sa Thiès daanee Sa Thiès am mooy woo xam ni bàyyi dinay tukki. doo dootu raaf parce que Sa Thiès bu daanee Eumeu Sène da koy ubbil bunt yu baree baree baree baree bare waaye Eumeu Sène bu daanee Sa Thiès dina am woy woo xam ni bii histoire dina ko bind ci taarixu làmb ba woon andi Sa Thiès comme mooy xale bu arbitre soufflé fetal fetal ko comme ni mu daan waaw fetal ko rek <laughs> fetal ci kawam. waaw fetal rek tëf tëf tëf tëf tëf mu foog nga daw féete suuf faal def ma ni mbër day teel a féete suuf tey jàpp door a bëree. <laughs> Ah, waaw waaw. Mhm. ama euh, Sa Thiès buy bëree mu ama seen di xaar. Mhm. bu yobam bàyyi ngembam. Mhm. mais lamb neex nag ama seen ak Sa parce que ñoom ñaar dañ di ay bëreekati loxo tabarkaal la sama xaalis xii na dañu mën a bëre. di boroomi fit. moo tax may la heure bu ñu jàppantee làmb ji jeex duñ tàggalikoo mm-hmm. déedéet mm-hmm. duñ tàggalikoo mukk te jeexul waaw moo tax combat bu neex la mm-hmm. boo xam ne yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm mais combat bu rëy rëy rëy ngoog ama seen ak saa Thiès waaw <laughs> moom laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah xeeti bëre yi ñu yor parce que ay bërikati tànk lañu ay mbootkat lañu Eumeu Sène maa ko jëkk tegal ñaari junni ci àddina contre Mbaye Diouf buntu kër Youssou Diène raw gàddu la woon ba mu yàgg ma dolli ci 5000 maag Gaston Mbengue soo mag ne ku daanu am 10000 ku daan am 10000 ku daanu am 5000 Eumeu Sène keroog moom Mbaye Diouf dañoo bootante ñaari gauche la ñu may def ko boot mhm. Eumeu Sène botti ko. Mhm. Mhm. waaw te boo xoolee Sa Thiès mm-hmm. dina boot. waaw combat yu bari ñu xool ci boot la. waaw waaw de mais mais mais mais mais man mm-hmm. na man na jeex ci boot man na jeex ci toog. ci toog waaw. Mm-hmm. comme li nga waxee sa papa bëgguma muy analyser ci làmb parce que bu analyser làmb bu yàggee rek ah dina wax làmb ji te yaakaar naa sénégalais ñu ngi xaar li nga xamante ne moom mooy làmb boobu di Sa Thiès ak Eumeu seen mais papa Balla Gaye Tapha Tine ñoom ñaar seen forme gis nañ Tapha génn temps duggee génn ci piscine bi naam gis nañ aussi Balla Gaye génn vidéo di entraîner combat boobu mu nekk combat revanche naka nga ko gisee. waaw xam nga. Ah. combat revanche toujours ci ay jàmbaar dafay neex mm-hmm. ndax Tapha ak Balla Gaye dañu ay jàmbaar di mbër gën a yaru ci seen génération mm-hmm. walla bokk nañ ci bokk mm-hmm. te combat revanche dafay metti ci ki ko ñaan war a yomb ci ki koy maye dëgg la waaye il faut que ñu xam ne Tapha jàmbaari fàkk tëdd la mm-hmm. Balla gay nag iléerab gumba la xàmmewul dugub ba am ñax mm-hmm. ñoom ñaar boo xoolee leen combat bi jaral nga xam ni ñoom luñ leen fay ci làmb jar na ko ndax boo xoolee Tapha Tine mi ngi bëgg a def 3 mois Côte d'Ivoire mm-hmm. di entraîner 24 sur 24 Balla Gaye mi ngi bëgg a boucler mois France INSEPS di wut doole di wut gaawaay kon combat ba boo xam ni bii li may jaax li may wax kay mooy est-ce que dana xëj arène national ndax ah, àdduna <laughs> <laughs> en tout cas. waaw combat yi am ci saison bii. Hmm. yàlla na ko yàlla sottal ak jàmm. Hmm. waaye combat yu neex la. Hmm. boole nañu ay mbër yu am jom. boole mbër yu ñimeñ. boole mbër yoo xam ni kenn du daw. bi nga seetaanee Tapha Tine génn ci piscine bi euh, xam nga Tapha. duma bett ci puissance. du ma bett ci ñimeñ parce que daf ko donn ñoom ñaar kenn ku ci nekk doomi mbër nga dafa bàyyam dégg na daal di bawal dégg na ko siin dégg na ko saalum duba lees nag kooku waxi noppi kon ñaari doomi mbër bu ñu dajee te bi muy dajeeg tafaatin tafaatin yóbbu gaa yëpp ardo dajeeg Balla gay Balla gay xeex ak moom gañe ko seexe ba pare daan ko ñu toog lu bëgg a mat juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at ñu war a ramas tafaa def ci war a teg ba kanam Balla aussi tamit am nañu naan da teg bakkanam. parce que mooy combat bi ko que combat la boo xam ni moo koy dellusiwaat ci cent millions ak cent cinquante millions yi. te ñi mu war may revanche dafa bari. dëgg la waaw. waaw donc combat bu neex. waaw boo xam ni bii euh, boobu sax dañu defee ne dina am xeex mais du am xeex. ah combat Tapha Tine Balla ak Papa xeex boobu combat ardo du liggéey dara. Mm-hmm. waaw dañuy dañuy jàppante rek combat bi jeex. Mm-hmm. waaw dañuy jàppante rek combat bi jeex loxo du jóg foofu. Mm-hmm. parce que Fall daf ma waxoon ni ma. jël bëre bi jël duma yi dafay ëpp. da ngay jël benn bi bàyyi sa morom duma yi. Ah. waaye nee na ma duma pare daan dafay ëpp. moo tax ma xam ni. ñoom ñaar duñu xeex dañuy bëre parce que ay bërekat lañu ay bootkat lañu ñoom ñaar ñëpp dañu mën a boot waaye euh, jàpp ma ne bootante bi dinañu ko nangu waaw dañuy waaw combat boobu aussi mën na jeexe ci Mhm. quatre appuis comme mun na jeex ci defeenu mhm. waaw dëpp. waaw wala quatre appuis. waaw. d' accord d' papa amoon nañu mbégte vraiment di la dalal temps bi mhm. dafa xat te je pense que ni da nga voyage woo naa nag ba sonn mais. mais dafa am benn combat boo xam ni. bokk na ci combat yi dàq ci saison bi. mooy te du ngeen ko tudd. mooy ban mooy Quench ak Alioune Seye combat bu neex papa. combat bu neex. boo gisee may wax ne leen. waaw. journaliste sportif bu fekkee làmb ngay suivre daf la waral ngay jóg. Mhm. di dem seeti mbër ndax xam nga Quench ak Alioune Seye mooy combat bi gën a intense. gën a neex gën a riche. Mhm. gën a neex ci combat yi. Mhm. combat bu garaaw gi nee na duma Alioune Seye am. adversaire bu mel ni Alioune Seye 2 mais Alioune Seye 2. Mhm. keroog bu mu takkee ngeem bu bés bi muy jël avance su Quench am mbër mu mel ni Quench. dëgg la ku maa la wax loolu foofu laa ci yem ba beneen <laughs> d' accord papa awoon nañu mbégte di la dalal vraiment à chaque fois ah bu actualité bi toll fii wala actualité làmb dañuy ñëw waxtaan ak yow ah, di la wax ni daal kontaan nañ bu baax a baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internetu Feeling Dakar TV ñu lay seetaan ak ñi nga xamante ni sopp nañ la à chaque fois di la suivre rawatina nag papa sa français moom vraiment Sénégal yi dañ koo bëgg lan ngay tàggatoo ak mbokk waa jërëjëf di gërëm Feeling Dakar rek di mm-hmm. li nuyu ñi nga xam ni ñoo koy seetaan ñëpp mm-hmm. di wax ni émission bi lépp loo xam ni wax naa ko ci te lépp rafet yàlla sunu borom ko rafetal mm-hmm. ci am manqué manqué nag doomu aadama matut maa manqué maa ngi balu ñëpp àq di bal ñëpp àq ñuy tàllalaat yàlla sunu loxo sunu borom loxo di ko ñaanal réew mi yàlla sunu borom def ci jàmm defal ko ñu ko dëkke di ñaan itam ci kattanu yàlla sunu borom noo ngi jëm ci eh, nawet noo ngi ñaan nawet bi yàlla na ko yàlla def muy nawet bu sedd guy yàlla na yàlla def muy nawet bu barkeel di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal kilifa aada yi di ñaan yàlla suñu borom taxawuñu taxaw suñu njaboot yépp di ñaan itam eh, noo ngi dëgmal tabaski yàlla nañ ci dugg ak jàmm mbégte mi ci sunu maam Ibrahima amoon Ismaayila am ko mm-hmm. soxna Aajara am ko mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal kullu jullit rawatina julliti Sénégal mm-hmm. ci barke bi yonent bi alayhi salaatu ko sa si ah oui moi suis rendre grâce à Dieu parce que dans les normes déjà <laughs> euh, parce que moi c'est pas un journaliste Moi, je suis. Quand moi, tu dis rendre grâce à Dieu, Dieu, il m'a donné tout. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, euh, Dieu, il m'a donné. Euh, comment mm-hmm. dirais-je euh, euh, Dieu, il m'a Parce qu'un temps normal, euh, moi, je suis. parmi les membres fondateurs groupe Sud Communication en tant qu'un bousé mm-hmm. un cultivateur un patiras mm-hmm. ça c'est une don de Dieu mm-hmm. le don de Dieu il m'a donné moi je suis dirigé émission s'appelle Caxabal dizaine d'années à la RTS une émission qui draine mm-hmm. full monde mm-hmm. Mm-hmm. des années une émission qui durait une trente minutes donc ça c'est une dose de Dieu toute ma carrière au niveau audiovisuel il n'y a pas de malheur Moi, je suis très, travaille sur des femmes pendant 30 ans. Mhm. Il n'y a pas. Mhm. Jamais moi, je suis créé malheur pour le groupe de communication. C'est fait dizaines d'années, 19 mhm. ans ou 20 ans, 21 ans, peut-être RTS. Jamais moi, je suis créé <laughs> malheur à RTS. Jamais moi, il un mis en demeure à la Donc, ça, c'est une don de Dieu. Parce que moi, tu dis en France, en 1999 ou 2099, mmh. Hmm. moi, il dit, moi, seul un boussé mmh. dans le monde entier devenir un journaliste quel est. Donc, hmm. tout le monde connaît moi hmm. à travers national, international. Parce que quand moi je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle en 1998, mmh. il y avait 50 Sénégalais, il m'a accueilli là télévision nationale. Mmh. Grâce à Sud mmh. Moi je suis arrivé mhm. à Washington. 25 personnes, il m'a accueilli là-bas. Tout le monde dit Khadim, il est là. Grâce à. Grâce mm. Sud FM mm-hmm. et Télévision Nationale. Ce sourd qui m'a marqué mm. dans ma au niveau de l'audiovisuel, moi mm-hmm. je quitte New York avec mon ami Dame Babou, arrivé à mm. Atlanta mm-hmm. vers 17 y a ma sœur s'appelle Aïda Thiam le fils de Massélé Thiam mm-hmm. à Souguer il m'a accueilli avec mm-hmm. plus de quinze voitures mm-hmm. moi suis arrivé au niveau de l'aéroport tout le monde te dit Khadim il est là ça c'est une parce que mm. euh, euh m'a qui m'a frappé ce jour la moi vu que y a plus de 1000 personnes chaque personne arrivée y a une personne qui prend un prend écrit son nom sauf moi tout le monde y a un pancart tu dis le pancart comme ça quand moi je suis sorti dans les halls avec les les les sacoches là mhm. tout le monde te dit Khadim il est tout le monde connaît mon visage surtout cette moi suis habillé comme la Dior Ngoné Latyr moi je suis habillé comme le habillé de Lat Dior comme habillement de Lat Dior comme habillement de Alboury Seynabou comme habillement Diodji Déguène Kordou mm. comme habillement Thiassine Ngoné Déguène Dior Mbathio mm-hmm. cette jour-là moi suis resté aéroport Washington presque trente mille avec les Américains mm. ma supporté un souci un bot. jusqu'à là. Mm-hmm. un bonnet s'appelle curucara. <laughs> et sasia donc ça mm-hmm. vraiment mm-hmm. moi suis rendre grâce à Dieu solennellement euh, ma mère et mon père et ma famille parce que radio et télévision, mm-hmm. maintenant c'est du n'importe, mais à l'époque c'est dur. C'est dur. Mm-hmm. Donc euh, moi je suis souhaité mm-hmm. Sénégal bon, demande Dieu, Sénégal paix, demande Dieu, tous les Sénégalais communion mm-hmm. bonheur au Sénégal mm-hmm. les les tarixa mm-hmm. musulmans les chrétiens et tout euh, ma famille tous famille c'est la femme fils petit-fils et tout parce que ma famille il m'a soutenir toute ma carrière. Mais le car... parce que moi, mon carrière préférée, hmm. c'est le vendeur viande. c'est mon, ça, c'est mon métier hmm. préféré. Parce que viande, il m'a donné tout. Hmm. Tout. Cette liée-là, il m'a donné tout. C'est Dibiteri Abdoulaye Narsab. Donc, quand non seulement tu viens ici, mais regarde. Dakar toute ma carrière. Mmh. sportif côté religieuse. Mmh. administratif culture tout sont là. Mm-hmm. cette photo là avec président Diamé. Mm-hmm. c'est fait une conférence de presse moi-même salle conseil ministère à à Gambie à 1900 à 2001. Mm-hmm. c'est une c'est une historique. frère. Ton ami Macky Sall. tout oui c'est c'est plus qu'un ami, jusqu'à la mort. Mmh. Hmm. Macky. bisimilah. <laughs> jërë ngeen jëf ci ñu mbokk internet Feeling ah, Dakar TV comme ni koy defee à chaque fois mbégte la ah ñuy dal ak moom di waxtaan ak moom comme toogee day mel ni comme set ak li nga xamante ne moom mooy maam ah, waxtaan bi ak ni muy kafeek ak ñun comme ni mu koy waxee di ko ñaanal papa gudd fan. Ah, ak wér lépp li nga xamante ni bëgg nga ko suñu boroom defal la ko ci barke Seydina Mohamed. parce que soxla nañ la soxla nañ aussi message yi am solo yi nga xamante ni à chaque fois dañuy